alaykum mbokk ñuy déglu ñuy seetaan suñu émission Thiès Buzz fii ci euh, Thiès Info ñu war ñu fi dalal tey euh, Oumar Seck nekk euh, artiste comédien Oumar sa jaar-jaar ci sa wàllu njàng xam nañ ni bachelier en série dénga mais ñu bëggoon nga xuus tuuti pour mbokk ñuy seetaan. ah merci Oumar alaykum waa Thiès Info alaykum waa Thiès alaykum waa Sénégal yëpp ah sama jaar-jaar ci côté njàng comme xale bu juddoo ci réewum taax ku ne boo juddoo ñu dugal école nga def école primaire def secondaire ba terminal yàlla dimbali ne ma nag mooy jaar ci étape yooyu yëpp ba yàlla may ma baccalauréat ci jamono yi les années 90 am bac en série D euh, jaar lycée Mali Sy jaar naa aussi euh, collège privé Le Kayor bac série D ñu orienté ma euh, faculté des sciences ma def lu tolloog ñett ñetti at génn nekkaat ci yeneen affaire Omar lan mo la génne ci njàng yi parce que tay buñ waxé waxee bac ci jamono yooyu en 90 jang amone na valeur bokkutul ak légui ñu gis ni tay yaangi ngi dugg ci benen monde muy le monde du théâtre am lan mo la duggal ci lolu waaw mu nekkoon rek ay état bi xawon jafé am touti jafé jafé ndax euh, période bobu bu ñëpp rappelé wo ñun dañu dem ci benn at ñu am li ñuy wax année blanche euh ñepp xam nañ ko si je crois que en 88 le ñu teg ci ñaari at encore ñu dem université njàng moo xawono sox moy mooy perturbation yi ñuy dem ci lu ñuy wax année invalide moy manam que da ngay dem ba pare do def examen wala normalement xam ngeen ni eh, université war nañ la évaluer ci ñaari yoon muy session de euh, juillet bi daan am ak session d'octobre bi boo démé aussi sur ñaari session ben yoon lañ li am wala amul sax évaluation donc yooyu dafa demoon que ko amul courage lool lool wala jappalé trop sa njàng dina naxsaay donc euh, xaw être victime de ce euh, ci fléau bi amone ci jamono bobu Omar la moo dugal ci théâtre. wa théâtre mom dafa nek ci sama deret la ko mën wax ndax famille bi ma bok je crois que ku dégg ku né dégg na Louis de Finesse té Louis de Finesse amna ben compagnon africain bu mu daan andal bo xamni ñom moom na ak moom joué lu ñuy wax ni La Cisanie ak yeneen film yo xamni ku ñu wañ wax Ibrahim Seck Ibrahim Seck man ak mom ñoo sama mag ci mom ñoo bokk ben papa euh bokk na ki nga xamni ñun initié nañu quelque part ci théâtre parce que dañ ko daan xool parce que mom mi won en France don évoluer fofu donc suñu kër aussi nekk kër go xamni déjà bo fu juddoo rek ci bir cour familial bi rek da ngay def théâtre sans s'en rendre compte voilà donc mën naa ni ñangum théâtre fofu lu commencé ci ñun. Euh, fan nga jëk doore théâtre manam ci ban troupe

sama li ma jour bi ma njëkkee yéeg sur scène du jeu théâtre c'était en 1982 juin 1982 Donc interprété rôle Kocc Barma donc boobu ci l'a njëkk sur scène don, don jouer boobu en tant que élève la woon boobu et puis boobu aussi sama école Moi gagné une coupe boobu nga xam ni moom la donc fofu la commencé di mettre en valeur yi nga xam moy mooy li ma yàlla moy ay dons sur le plan artistique donc bi loolu passé bi ma demee ba nek université ma amone aussi ay contacts ak troupe jamono tay donc euh, père Abou Camara était là-bas Lamine Ndiaye institut yàlla may su ma musaan jóge université dama dan jaay euh, jaar euh, maison parti socialiste jamono yooyu foofu la ñu répéter, may seetaan répétition di contribuer sur l'écriture yi nga xam mom moom def ak Cheikh Yarak Fall moom Cheikh Yarak Fall moo bind Billy Boy je crois bien am moi bind am na le film bu Gore a joué woon góor a saay film bobu man joué na ci ak saay-saay j'étais parti la deuxième personnage mais non deuxième personnage du film bi donc ma dugg ci jamono tay ma duggee ci jamono tay ba yalla def ma revenir à Thiès nak qui l'a commencé embrasser la troupe Diankhène en 1999 waaw troupe jànqeen moom mooy wax parce que jànqeen nekk na ci benn ci guddi gu lëndëm mhm. parce que dañu gisoon ni jànqeen def na fi jamonoom mhm. euh, ñu gis euh, benn instant jànqeen yëngatul ci dara ñenn ñu ne ñu ki nekkoon ci bopp bi moom moo dem waaye tamit euh, départ ñi nga xamante ne ku mel ni Cheikh Seck tamit nekk na loo xam ne joué na ci ak départ ki nga xamante ne moom mooy Matar Seck moom it. Moussa Moussa Moussa Seck. Mhm. loolu nekk ay jafe-jafe yow it nga daal di bàyyi bi nekk fële ci bitim réew est-ce que mën nga ñu ñëw ci loolu. waaw euh, jànqeen moom dinaa sawar wax ci moom lu lu bëree bare effectivement bu ñuy seet que léthargie bi nit ñi constaté am na parce que jarul nëbb parce que koo daan wane soo waneetul ñu xam ni waneetoo loolu moo am mais li ko waral. Euh, yàgg na sax jiitu na bien avant départu Cheikh parce que bu Cheikh bi mu demee léegi xaw na toll peut-être ci un an wala deux ans te bien avant jànqeen génnewul dara au fait lu loo xam taxaw na bu lu nit ñi wara mëna mën peut-être génne na fi ay benn cassette kay ji yaay wala yenen mais batay impact bi mu am amuko donc kon jànqeen mi ngi commencé won di disparaître sur la scène euh, bien avant Cheikh il y avait Moussa aussi mom mo ñëk dem 2004 euh, la dem Europe mais après départ Moussa euh, doon nañu continuer di produire sentiru ñu dara bon man aussi bima bima démé euh, man maa ngi dem 2008 bon c'est vrai que boobu ba ba 2008 ba nëgë aussi que jànkeen deful dara yoyep c'est normal xam nga groupe groupe la tuddu du ben nit du ñaari nit ay nit ñoy dajale pour nek groupe donc bu kenn démé c'est comme une famille bo enterré kenn mara détail bu kenn dé rek nit ñi dinañ yegg ni am ko fi wàññiku euh, du té nit ñi dinañ ko joy mais du té la famille continue à vivre mais lolu aussi li ci am solo ba am solo moy ki dafa am rek benn genre période de transition la dafa am benn léthargie bu am ci liguey loolu rek day am ci lu mu bane lu bari moy li gars di wax les périodes de mutation période mutation rek bu ñëwé ci groupe da nga koy nungu da nga naan ràcc taxaw nga taxaw nga analyser say faiblesses ak say avantages bo boo analyser ñaari ki yoy nak di nga mëna xam yow exactement fan nga mëna tek sa tank pour mëna dem d'avant euh, d'avance limay may faral di wax rek moy que jànqeen patrimoine la un patrimoine la Moi que da ngay à chaque fois bu ñuy def reportage sur le plan théâtral fii ci Sénégal ken du tëb jànqeen production dañ koy tudd donc lu ñepp mom la lo xamni ñepp ñëpp ñoo ci war pour sauvegarde donc lolu la ah, légui rek yaakaar naa ni ci jëmono yi ñu amna taxaway yo xamni ni ni ko bëgg taxaw pour encore relancer les activités jànqeen sur le plan théâtral mais euh, Omar dañuy ñëwaat ñu wax parce que bu njëkk bo waxee théâtre Sénégal dañuy tudd Daaray Kocc dañuy tudd jamono jamonoy euh, tey tudd Daaru Kocc mais dañuy tudd jànqeen ñu dem tey ba tur boobu kenn déggatu ko ci dara maanaam ci wàllu activité ci wàllu production théâtrale jànqeen nelaw na bëri na ay départ yoo xam ne am na fa waaye itam bëri ay problème yu nekk ci biir ñu gis euh, yeneen troupe yi commencé di màgg Thiès tey euh, li fi nekk ci ay troupe bëri na ñu gis théâtre bi nekk tamit beneen façon yow ban jàngat nga ci am jàngat bi ma ci am mooy c'est vrai comme li ma rek phase de mutation là mais ci ni ma parce que souvent nit ñi dinañ ma faral di toñ ñun ma yow da c'est normal que ma gëm parce que je dois beaucoup à jànqeen waaw donc xam nga euh, li li wolof wax ni la bi la fal boko woté da ngay te li nga xam yow nga ci lu bari te nit ñi ragné. la ci donc doko mëna euh, effacer comme ça kumu mëna briller dinañ am benn tomb boo xam ni tomb jànqeen la ñoo ngi koy gis ci yow par rapport à tous les départements, na ak ku mën doon rek bu dee Moussao Cheikh Seko man ku di gis à travers nos visages ou à travers nos produits ou euh, à travers nos actions l'action de jànqeen envers nous donc c'est ça c'est inéluctable kenn mënu ko daw donc li nga wax euh, évolution la ak mutation xam nga nit dafay nungu évoluer par rapport ak un temps bien bien déterminé mais bo bëggee stagner di marquer le pas da nga nit ñi dañ lay dañ lay romb ci benn côté jàng kenn ñoo wara a def benn prise de conscience jéem a adapté wu ba jéem dox jëmale ci merci beaucoup nungu changement yi jamono c'est très important et je crois que loolu euh, du yag inshallah que nit ñi teg ci sen beut ah théâtre bi rek effectivement que évolué na bu baax et que loolu na nit ñi doon ñaan yàlla bu njëkkoon da nga daan dégg artistes yi di wax di jooy ñun lañuy théâtre ba dee amuñu ci dara amuñu ci dara léegi looy discours bi may dégg ci artistes yi dañuy wax naan affaire bi am na xaalis affaire bi gaa ci tedd. manam amna xaliss parce que dañuy gis ben affaire tamit dañ koy wax ci théâtre bi muy am. Mhm. parce que région yëpp am ay troupe théâtrale commence nañu jënd def ay production mhm. mais bi euh, Soleil Levant jógee. Mhm. daf nañ dafa révolutionner le monde du théâtre day melni ni ci ay jamonoom ak mbalax. amoon amna ben période bo xamné période de mutation bobu ngay wax dafa melni tay euh, Soleil Levant amna lo xamné participer nañ ko ci li nga xamantene mom moy le modernisme du théâtre sénégalais. voilà exactement comme nous ko parce que le soleil levant si rek exemple par rapport on les regarde par rapport à cette série bi mujj wiri wiri li tubaab prendre le bon le ballon au rebond et c'est ce qu'ils ont fait ils ont pu c'est des jeunes que j'apprécie que je félicite au passage ils ont pris le ballon au, la balle au rebond que taxaw def une prise de conscience indiwaat leneen lu bees nit ñi apprécier parce que les may faral di wax nit ñi kenn su neexee ñu ni neex na su ñu ni naqari amul ma dem te si c'est bien fait si c'est un travail bien fait ils diront oui mais si c'est médiocre ils diront médiocre et ils sont en train de faire un bon travail et c'est comme ça su ko yeneen Il euh, y région yi aussi si aussi. étape bu ne ak la ci top. si nga bi damay faral di wax nii euh, théâtre Sénégal ci li ñu xam bon amoon na ay cercle du euh, cercle Louga ah waa Louga yi ainsi de suite mais ci li ñu comprendre mooy daara Kocc moo fi nekkoon daré coach bi mu demee ba ci jamono euh avant daré coach jamono tay mo fi nékkone jamono tay mo jur daré coach ci jamono daré coach bi mu amee jamono yoy yeneen euh, département yi wala région yi wala ki commencé nañu di ci ci la ay libidoor mu malik Ndiaye commencé judd moy ci day yenn département yi ainsi de suite bi ñu ba ci ki région yi comprendre ki lañu ñu gis ba baara yogoo bu Saint-Louis juddu baara yëgoo bu Saint-Louis bu ñu juddoo et région yi comprendre aussi fu mel ni Thiès ne ah ñu nit war nañoo mën def leneen ci la jànkeen juddu mais biir jànkeen bi ñu région yi war nañu comprendre encore ci biir ni que benn ci région bi warul am benn troupe rek que yeneen troupe mën nañu parce que talent yi bari na te ñenn ñi mënuñu regroupé ci benn troupe rek ci la lu mel ne ay Selo Levant juddu ak yeneen troupe yi nekk biir Thiès eh, ay cercle di Kayor jiitu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc noonu la mbir di évoluer kenn ku ne gis nga mbir xam ne lii kenn ko mën a mën a nga ci dugg indi toujours il faut amener du sang neuf mais toujours ne pas répéter les mêmes choses Il rek lay jafé jafé di am mais gis nañ ni actuellement gars yi sont mais maintenant il y a un problème qui se pose le problème c'est quoi c'est au niveau des qualités des contenus l'alpha parce que gars yi dañuy précipité wu former pour former dajaloo pour dajaloo guinée pour guinée et que des fois apprécié ni ñenn ñi dañuy mer wala dañuy wax et que c'est pas ça moy li faral faral ñun luñ neew lu xam ci théâtre mais bu génné bu bu gongo dañ ñaan gongo dara dakh ko mais bu naxaré ñu naan aussi dafa naxarina parce que aussi damay faral di wax il faut que ñu xam ni li ñu yor ñangalé la ça c'est la mission première du théâtre comme moy njàngale divertissement ngi ci bir nak ak leneen on peut divertir euh, en enseignant dans le divertissement amna ñangalé njàngale bu nekk en éduquant encore en même temps donc yooyu yëpp boo ko fee lépp mais comédie bi moo gën bari bari bari bari ci rek ak bi ñi ay rek ci bi bi. waaw ay ñu gis euh, le monde de la culture nekk toujours en souffrance au niveau national. Mhm. parce que dañuy gis euh, même ministère yi am sax ay région mais dal lu néew la ñu réserver culture ñu gis fi à Thiès bëri na ay maire yu fi jaar am na sax ñoo xam ne daan nañ jóg di jël rajo yi di jël les rues surtout avec euh, votre association ARCO ñu fàttali yow yaay le vice-président au niveau national. je suis <laughs> je <laughs> <laughs> donc euh, loolu nekk lu am solo. ñu bëggoon nga ñëwaat ci. waaw ARCOS euh, moom dama bokk ci ñi ko formé. ak ndam si yàlla Ndiaye Doos yàlla na ko yàlla yokk leer bañ koy formé ñu woolu ma au niveau de caisse ma dem au niveau de Dakar euh, ñu xamal ni dafa am association bu ñuy formé bu ñu koy Arcos euh, Arcos googu ñoo daan organiser euh, le festival du rire de Kaola Je suis le premier vice président au niveau national et je suis aussi le président au niveau de la région de Thiès bi loolu amee man ci période boobu dama tolloon ci phase informé les gens informés, li moy Arcos ni la defoon nañu fi ben tournée àndoo ko gars yu bari ñu pour informer il et c'était utile en ce moment parce que damay faral de wax ni euh, artistes yi amuñu won structuré wuñu woon amuñu won structure bo xamni bo démé wax leen mu leen di waxal et maintenant avec Arcos gis ngeen ni affaire bi évolué na évolué na ba ku bëgg wax am nga fo waxé ñu kaasal et et que bien que considération bob amugul en 100% mais déjà que c'est am alerte nit ñi alerte et l'État amna alerte aussi État bu bëggee am kuma amna interlocuteur et là c'est déjà important man période boobu foofu laa ci tolloon les gars aussi avancé au niveau de caisses, qui euh, fi aussi euh, Dramé Jules euh, ñoom it ak groupe bi mu àndal ils ont def un plus par rapport ak li ma defoon man information la sensibilisation ils ont organisé ay festival du rail et ainsi de suite donc c'est encore bien nous àddina non lay doxee. Mm-hmm. ci wàllu li nga xam ne mooy culture ñu bëri na ne joxuñu ko dawet bi mu a am ci place am ministère de ci état ba ci mairie yi sax am na si ñoo ne lu néew lañ ko réserver ci wàllu budget ñu gis euh, activité culturelle yi y aura am pour euh, gagner du dundal li nga xam ne mooy dëkk bi loolu dafa est-ce que ci maire yi la walla ci ñi nga xam les acteurs culturels. koo koy luy damay du commencer ci maire yi damay commencer kay ci chef de l'État mhm. wàcc ci maire yi ça c'est euh, dafa gis nga discours yi moo ëpp moo ëpp action yi et que gars aussi comprennent parce que euh, d'abord, la culture wala euh, industrie ci de côté le cinéma le théâtre la musique ak yene ce li muy dugal ñëpp ni man nga ko organiser lu bare bare man indi ay milliards et ak ak milliards ak milliards mais toujours c'est le toujours encore le même discours que acteurs culturel. yi gars yi les len ci côté toujours ça c'est un discours qui revient qui revient encore mais il est temps comme nous défendons les états généraux de l'éducation mais défendons les états généraux de la culture ah, mais c'est ah toog ak nit ñi ñu wax gaa gagné, lu doxul ak lu ah, Texas ah ay li muy est ci euh, cinéma li muy qui xamul lu mu toll le festival de Cannes li muy mais mbir beaucoup de mais li muy dugal Burkina Faso kenn xamul lu mu toll tey jii Burkina Faso avec FESPACORE am na tur woo xam ni kenn xamul fu mu toll ci àddina kenn lu koytu ko présenté man maa ngi biti réew dama lay wax mais barke Cheikh su ma waxee nii les Sénégalais des fois dañuy neloo ci benn côté ils pensent que notre Sénégal est connu man damay wax ak touriste mu Sénégal fan la ne damay obligé di expliquer expliquer man Dakar le rallye Paris Dakar ñu ci bëri xam nañ ko ñu ne ma ah Dakar Fall est waa Afrique wala kii alors que la destination Afrique ça rentre un peu dans le tourisme mais ça rentre aussi dans leur culture war la destination Sénégal Sénégal c'est pas connu Ce nit en réalité sur le terrain bu beaucoup. Hein, de mettre en considération les aspects culturels du pays pour que man donc euh, on y y un ministère pour l'eau, mais il yeneen mais a pas.

malgré c'est à ton c'est à ton absence mais tamit euh, da nga wax sank développement Thiès wax tamit euh, lu reuy di nga def ci théâtre ak fi ngeen toll euh, fofu question bu ma neex la parce que bien que sori woon naa mais am na loo xam ne suivre nako ci net bi xol dégg ci jamono yooyu xol am avis ci ñenn ñi ak ñi ci euh Youssou Ndour au passage je le salue et ñëpp xam nañ ko au niveau national ou au niveau international xam nañ ay action xam nañ li muy liggéey kenn ni yeewu ko ah parce que mooy li ma waxoon ne soo defee lu baax dañ naan lu baax la soo defee lu médiocre dañ naan lu médiocre la Youssou il fait un bon travail bu ñu amoon fukki Youssou Ndour wala téeméeri Youssou Ndour kenn du ko mer mais xam nga dëkk bu ne dafa am ay réalité am kooku àddina la Kees dafa am ay réalité am kooku ñëpp d'accord na ci ñëpp ñuy def politique xam nañ ni. Thiès dafa am réalité ñepp ñi dugg dekk ay opérateurs économiques, bu dul politique xam nañ aussi dafa am ay réalité am kër gune am na réalité am sa kër ak sama kër ñu même réalité donc kër wala foofu donc boy am loy dugal da nga koy jaarale ca yoon wo da nga koy étudier côté bob côté bob peut-être que on l'a été nég dafa euh, dañ ko xaw négligé bi muy poser peut-être son projet que tay jii ku ne réu euh, am nga euh, da nga koy ñaanal projet am peut-être mën a réussir mais li ma ciy wax li ma ciy yokkaat encore ci beneen bi mooy euh, kees du kees waa du keesu kees waay rek keesu waa Sénégal gépp la man mën naa jóge Casamance wala ma jóge Kolda ñëw am un projet pour kees on n'est pas limité dans l'espace par rapport ak kii waa kees et de mais su ma ñëw rek du ko def kees damay fëgg ci bunt bi foofu rek laa ciy wax donc côté boobu xañ benn ik la woon mais teewul ñun tous les Thiessois day avoir les mains ouvertes un cœur ouvert pour képp koo xam dafa pour le développement de Thiès man ko loolu rek laa ciy wax quoi. Omar c'est ginnaaw bi nga ne dem nga Europe euh, depuis ay at bon ñen ñi sax nee nañu loolu moo fay janké na ah, parce que yaa doon manager bi parce que yaa yoroon lepp ya doon doxal lepp bon même ñi fi joggé sax après ñom nee nañu gis ni dal Omar mo nekkoon bop bi euh, manam sa nekkin ci Europe lan nga fa def lan nga fa doon euh, xaar ak tamit euh, lan nga nar maanaam euh, lan nga nar pour li nga xamante ne mooy sa carrière professionnelle. ah xam naa li nga jiital ci wax bi rek moom kooku moom day metti maa fay jànqeen moom su ma ko fayee li wax di yàlla bëgguma ko woon a fay su ma bëggee bu ma yàlla dimbalee bëgg naa kon mu tàkk mais fay jànqeen moom aw ma yéene parce que comme li ma wax ci départ bi rek kenn ku ne jubbu bi la fal boo ko wo boo ko wotee da ngay folleeku donc mais xañ tombé moo waral ay gaaf euh, bëgg naa jànqeen jëm ca kaw jëm ca kanam bëgg naa aussi l'art la culture du Sénégal jëm ca kaw jëm ca kanam avec tous les acteurs culturels euh, euh, man nag sam projet sur le plan culturel mënuma bàyyi art je suis ma koy faral di wax mbir c'est pas toujours les mieux médiatisés qui jouent les, les grands rôles. Peut-être les moins médiatisés jouent plus les grands rôles que les mieux médiatisés. xam ni gars yi ñi fës rek la ñu xam que ñi nekk ci suuf donc non le dexe jànkeen ba muy tak groupe le ñu groupe bien ñoo daan ànd de classe bon quand nga maa président pendant dix ans période bi ma fi nekkoon c'était le président mais dama ko àndoon ak groupe nag ñu ko ànd di ko def nag du ci wax di ci dox di ci wax ah maa ngi jamono bii ma Sénégal mangi euh, redynamiser, rassembler redynamiser mangi ngi pour que gars yi defaat un jet un grand jet pour tout le monde parce que c'est au profit de toute la nation de au profit des Thiessois mais c'est au profit de parce que damay faral di wax ni le théâtre ou la culture d'une manière générale garab la si nga garab amul ben rek garab dafa am bànqaas yu bëree bëree bëree te ben bànqaas bo toogee ci ben bànqaas yow rek gis mu naat nga ni man may garab gi yaa ngi nax sa bopp kenn ku ne mën naa toog sa bàngaas te tee garab gi nekk fi ossature bi mooy garab gi mais bàngaas bu ne ci garab gi la bokk beneen bi damay faral di wax ni mille production mën nañ ko am ci bis bi télévision yi dañuy teg rek mën nañoo teg benn pièce mu neex ñëpp seetaan apprécier nga teg gi daal di teg ci wet gi tegaat beneen du teekee ñu apprécier waat ni bii neexaat na mais ça veut pas dire que man rek maa fi nekk man rek la ñu war a seetaan man rek non kooku moom mënul dem égoïsme la de waaw kooku moom baaxul loolu mënul dem donc par rapport à mes projets donc euh, ak li ma doon def Europe euh, maa ngi ci Europe bi maa ngi ci yëngatu sama yëngatu qui euh, ci lolit it ngi doon yëngatu def fi participer na fi daw ci ben film cinéma bu bok bu tudd Palmera en la Nieve ci tour espagnol la yor boobu def naa ko participer ci lool macha allah am ci succès aussi ci ki bi parce que vraiment amna na ci ma ciy jaar daal ah lolou génnagul je crois que film bi mi ngi montage ba léegi su génnee xam Sénégal yi dinañ ko sétane amna aussi ay projet yo xamni pour réew mi la euh, parce que man théâtre scénique daf ma neex parce que ci la jàng théâtre ci lu bare ci laa ko am benn pièce bu ñuy wax Yédermaan te genre grandeur nature lay nek bëgg na ko réaliser fi parce que en 2008 bi may démé Allemagne dañ ma sélectionné won man.

mu def succès bu maga maga mag pièce bobu en allemand la won euh, reprendre cette même pièce ici au Sénégal avec la participation bien sûr de des artistes comédiens du pays et peut-être pourquoi pas une partie même des Allemands qui vont participer parce que c'est une pièce très très riche. Omar dañuy wax euh, bi nga l'Europe Europe def nga fa tournage def nga fa ay production yu bëri euh, fi nga nekkoon tamit Sénégal def nga fi ay tournage yu bëri ban différence nga ci gis. bon. Europe me suis ma fa le euh, théâtre scénique la reprendre euh, en 2008 euh, avec la troupe bon me suis aussi à, en Espagne à Las Palmas joué suis fa ak les frères Thune ay ay ben ben spectacle bu nous monté je me rappelle bien Fatou woon ça. mais li ma marqué moi, j'ai fait un mois de répétition avec des Allemands man dit que tout est allemand tout, est allemand mais ce qui neex xam nga jox la texte boo xam ne li nga ci li ngay wax lépp mënoo ko traduire déggoo ko li may jox dañ la koy sol dañ may jox texte boo xam ne c'est en allemand li mu doon yëpp nga am pièce boo xam ne une heure trente man maa ngi une heure de temps dinaa ko def sur le plateau wala une heure wala une heure vingt sur le plateau di converser avec les Allemands ak nit yu weex ñuy jouer ñuy jouer lu wóor te lu ci bari sama texte am lu ci lu bari mënuma ko traduire en français wala comprendre ma ko littéralement lan lay tekki mais sol nañ mako ko jàng ko avec une bonne prononciation te su ma ko waxee di nga xam ni kii li wax allemand bu leer la bu wóor donc koku euh professionnalisme momako may. professionnalisme waaw en termes de rigueur de professionnalisme de ponctualité. waaw foofu laa bëgg a ñëw foofu laa bëgg a ñëw rek li ci dess moy euh fële amul fo amul tiaxan gars li ñuy wax 8h 8h la 9h 9h la liggéey da ngay ñëw summeeku nekk ci liggéey bi du matin au soir pause mini pause bu na ñu ngi avec rigueur costume essayage costume décor essayage avant de def le donc il am un moyen de professionnalisme un ëmb lu bare lu mais beaucoup détaillé rigueur sur la ponctualité rigueur sur le travail hein, rigueur sur jox ak li nga xamni mom nga mom ngay def remarqué et que lu joxe ses ses fruits là. Euh, wax ñu tuuti euh, suñu émission xam ni euh, na sa famille Diankéne ci ni nga xam ne les membres naka ngeen dund naka ngeen dunde woon ak tamit naka ngeen di dunde ak nan nga fas ak waaw man relation quoi damay wax ni relation man lu am ci ci am allah donc dama gëm relation humaine donc ci relation humaine à chaque fois man waa jànkeen bien que maa ngi ne mais dafa mel ni absenté wu parce que ma leen di woo ku dul waa jànkeen sa ma yàlla may ma xam leen kees wala ma xam leen Sénégal ñëpp damay jox ak ñoom téléphone email ainsi de suite ñuy weccontee xalaat di demlante di dikkalante su ma fi ñëwee aussi damay toujours damay jéem fexeel ba rassembler toute cette famille ñu dajaloo parce que man je me je me dis que famille la famille la toujours aussi damay def de sorte que ñi demoon ñi fi nekk ak.

la mooy doon say euh, kàddu yu mujj. waaw sant gërëm rek kàddu yu mujj yi ah, di nuyu di jéggalu aussi xam nga wax dafa xaw a doy waar te mën nga wax blessé doomu aadama te doo ko sentir quoi ci benn côté di wax rek nii ñun ay nit lañu yàlla def sunu boo euh, def ci ñun euh, xel moom la tubaab di wax être doué de raison. cette raison laa daf ñu am lu ñu war a mën a jariñ daf lan la ñu war a mën a jariñ ñu ñëw.

ci benn côté directement wala indirectement loolu aussi rek war na nekk mission doomu adama kenn ku neen na nga taxaw xam ni la yàlla waxoon du dem an ñi jaayilul fil ardi xalifatan njàmbi dañoo bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci ki nga xam ne mooy Umar Seck nekkoon fii euh, ci jànkeen yore ci ay ndomba tànk tey mu dellu siwaat ci biir jànkeen te ñu bëri tey newoon nañ jànkeen dem na maanaam ba sooxee mu amoon ay wax yu bëri ci biir ñu bëggoon nga ñëwaat tuuti ci Umar moom. Oh, Omar c'était le président de Djanjen et ce n'est pas pour rien nous avons fait l'Assemblée générale euh, nous sommes fi président d'honneur Nous avons dafa am lu mu représenté euh, groupe donc donc manager du groupe bi euh, groupe donc véritablement euh, bi mu demee rek la le problème yi commencé di mais véritablement Omar nekkoon na nit koo ne nii na nit koo xam ne nit ku bëggoon jànqeen la ku donc euh, Omar en un mot ménageur la woon néew ma ci sax mais Arco sax moo nekkoon président bi te mu ko di doxal ñaar mais tey euh, li nga wax dañ koy firndeel parce que ñu bëri nee nañ sax jànkeen dafa parce que déggutu ko parce que Omar mona kon manager bi euh, Omar am na loo xam ne indi na ko tey euh, est ce que mën nañ ni am ngeen bu pour fa mu wala mu ko ci ak Omar. nu jànkeen sax tasul ñuy wax jànkeen tas na dañuy wax rek xamuñu eh, ñun li ñuy def on le fait à l'ombre dañ koy def ci suuf ba mu pare. ñu yekk ko mu ñëw mais li Omar indi ni dafa nek leneen lu benen regain bo xam day gëna booster waat nit ñi ci dans le travail donc mais euh, jankhen tassul ndax def nañu ben production ba xam ni nii presque na donc kon lolu amul ben problème waaw jankhen tassul hmm. Omar mën nañ ne yaakaar am na pour euh, ngeen dem gën a demaat ci kaw a kaw. oui oui on va on va on va travailler ñun ñëpp on va travailler comme ni mu waree ñun ñëpp dinañu liggéeyaat ni mu waree commencé waat nañu daje di réunir et tout donc lépp dina jaar yoon ci kàttanu yàlla waaw ndax ressources humaines yaa ngi fi ñi ko daan def ñu ngi fi dara jotuleen te tey la ñu gën a mature. on dirait que mësul dem parce qu'il est toujours là il est toujours là parce que même bu nekkee Europe chaque minute mi ngi oote du toog 48 heures yoo xamante ne ootewul pour prendre les nouvelles de la troupe pour prendre nos nouvelles personnellement donc Omar il n'est pas là parce que même absent il est présent c'est l'absent le plus présent de la troupe parce que koo que su dina la là, ne la ana troupe bi a ngi si a ngi am activité a am manqué il est là il est toujours parmi nous donc su les vacances li ñu mën a wax la naa activité principale am c'est d'être avec nous ñun ñooy ay xaritam ñun sommes ay nitam nous bu ñuy wax ci moom duñu pare duñu jeexal parce que mënoon naa dem ah mënoon naa dem fàtte ñu mënoon naa dem aussi mu toog bu toogee ay 3 mois 4 mois mu woo kenn nuyu ko mais chaque semaine dinañu nous ñun ñëpp dinañu seet ni mu meloon jikkoom dara changé wu il est resté le même. même Omar Seck bi mu bi mu fi bàyyi woon moo fi nekkaat ba tey jii te tey la waalo gën a aay parce que dama kanaan xanaa yow dag ñuy nam ma Omar bëgg na jànken Omar bëgg nañu Omar dina seet lu ñu neex Omar dina seet lu ñu naqari Omar dina seet lu ñu am Omar dina seet lu ñu amul bu ñëwee cëpp Sénégal premier chose dama ko naan ñëwati nga kenn dootul amati jot parce que bu sañoon chaque jour dina ñu ñuuxu dina ñëw ci suñu biir wala ñun ñu dem ci moom. bolé kok di alalam de jox ce n'est même pas ce qui compte mais yëg bi man dama kay wax lepp lu mu def ci ñun ak nu mu mënti toll intéressé ma man yëg bi moo ma intéressé te Omar Seck yek nañu daf ñu yëg ba mu jeex amna lo loo nit li ñuy wax nit jikkoom du changer quand il était là avant qu'il ne parte en voyage il avait l'habitude un week-end sur deux il nous invitait à manger chez lui kaay leen dem na ba mujj bi mu organiser gàmmu gàmmu biir këram ku dem Tiwaawan boo fa yendoo ba ngoon di nga jël oto jubal kër Omar Seck te loolu da ko daan def boobu mu jógee gu fi quand il est parti daf ñu woo téléphone gàmmu bi ma daan def senegal bu leen ko arrêté de chaque année dinaa yónnee xaalis sama jabar dina leen toggal ba mu neex dinañ fa gàmmu chaque année dañuy dem këram toog gàmm te bu ñu demee këram gàmm ji dinañ fa fekk ku ñuy waxal ci Mohamed dinañ fa fekk ku ñuy waxal ci diine dina fa fekk ku ñuy waxal ci jamono kon loolu daka daan def bien avant que muy dem te loolu mi ngi koy continuer ba tey damay wax toujours ni bu nekkoon Amar sekk rek artistes yëpp ñooy avancé parce que ku amul xel dëgg-dëgg danga naa man la gën a bëgg ku nekk danaa Omar man la gën a bëgg te Omar ñëpp la bëgg Omar daal wax ci moom. Moi, vous m'avez trouvé en plein travail vous voyez en pleine répétition Je ma sañoon damay am euh, temps bu temps pour wax leen Omar parce que je ma ci doyal. kon mbokk yi xëy ci émission Thiès euh, Omar Seck vous kenn ci nga de la troupe théâtrale Diankhène di leen jot dig daje émission Inch'Allah.